idda mooy su jigéen ji tàggoog jëkkëram benn jëkkër jaa faatu mbaa mu fase ko dañ koy wóorluwaat ba xam ne andiwul ca jëkkër joojee dara mu door a dem di séyi feneen loolu moo tudd idda léeg-léeg nag mu wóor nu ne ëmbul dara sax tam see ñu defloo ko idda jooju ndax yoon moon ko sant kon ci yooyu jamono mu dik jaamu yàlla deesu ko sañ a bañ balaa soxna saa iddawu fekk muy kuñ mënoon a joteel waaye koo xam daa ndawee ba mënistu jotee ak moom bu dee idday fase moom buñ ko fase itam du tax idda war ca waaye nag bu jëkkëram faatoon moom faaw mu iddaw iddaw yi faatu te ndegam moom mënistu jotee ak moom dañuy jàpp ne kon kenn jotewut ak moom rek bu ko jëkkëram fase itam du iddaw te it nag fekk jëkkër ja mën a joteeg moom bu jëkkër ja amiwutoon ab sawukaay amiwut ay waa yàlla moom moo nangoo taw rek séeg moom gannaaw ba nag jëkkër ja fase ko du aajowoo muy iddawu ndax ndegam jëkkëram moom mënutoon a joteeg moom dañu xam jotewut ak moom rek su waree iddawu nag ci yooyu jamono góor dafa am jaam am li seet jëkkër ji ci boppam soxna si iddaw rek lañuy seet ba xam gor la wala jaam la bu dee gor la tey gis deret yetti laab lay am door a mën a séyiwaat bu dee jëbéer nag muy jaam bu jigéen yaari laab laab googu mooy bu gisee deret ba deret ja jeex loolaa tudd ak laab mel ne bi ko jëkkëram di fase bu fekkoon ne gisul deret ci laab la tollu day wàññi googu muy génn su gisaatee deret ba laab loolu mooy ñaareelu laabam laabu ñetteel ga bu matee te mooy deret toppaat ca bu fàtte ne laab gi mooy li dox diggante ba mu gisee deret ak ba mu koy gisaat nga xam ne laab gu ne balaa mat dafa dem ba reegal woor sës ci moom sës ci moom kon bu àggee ci laabu ñetteel ga day dem ba deret topp ca jeexal laab googu nag muy ñetti laab bu dee gor daal di mën a séyiwaat bu doon jaam nag moom yaari laab lay doon buñ ko fasee te fekk mu toll ci laab day waññi googu muy génn bu gisaatee deret ba laab rek loolu mooy laab ñaareel ga bu laab googu jeexee mënees na ko maye ñu jàppale foofu ne bañuñu ku maye jigéen te fekk mu gis deret fa sekkee la ñuy araamal ci bu jigéen ja tolloo gis deret waaye jigéen gis deret du tee mënees na koo maye ne na jigéen joo xam daa tolloon diggante jëkkëram faatu ñu teg ci ay minutes yu néew mu daal di am doom ñu wax ne iddaam jeex na fekk deret yi wasin jëm ngay génn du tee mënees na koo maye bañ ñu ku maye jigéen te fekk mu toll ci deret ku ko fase kay la ñuy bañ ci yooyu jamono bi alquran ne wal mutallaqaatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in quru boobu day jamxu xar in alqaru nag day firi mbërëg di firi ak laab bu dee ci yoonu Maalik dañ koy firee ak laab kon dañuy jàpp ne ni ñu ko waxee woon léegi soxna si biñ ko fasee te fekk muy gis deret bu amee yetti laab laab ga ci mujj mu gis deret mu jeexal laab googu rek mën naa daal di wuti jëkkër ci kaw muy gor bu dee jaam nag ni ñu ko waxee woon yaari laab lay doon waaye nag bu gisee deret ja nga xam ne moo jeexal laabut ñetteel ga buñ ko mayee fa saasay saasa ndax ñoo xool ne li ñuy wax régal muy baax bu dee ci wàllu jaamu yàlla moom la génn lum néew néew ak diir ba lum gàtt gàtt dañ koy tudde reegal mbërëg daal di wax jigéen ja mu sangu cangaayul farata ñu àtte ko àtte ko gis baax fii nag moom ci wàllu idda moom bala ñu ko wàññi muy deret ju mat sëkk day am bis mbaalu sori ci bis waaye bu deret jenee soteel rek daal di jeex fa saasa yi saasa bu dee ci fii ci idda moom duñ ko wàññi mu nekk deret ju ñuy wàññiwaale laab nga topp ci moom biñ ne jigéen ji moom kuy gis baax la jëkkëram fase na ko te wéetoon naa moom wéet goo xam ne jote xaj na ca ñu wax ne kon war naa ay daw ci ay laab waaye nag moom gis deret daal jafe ko lool mën naam tawata ko waral mën naam nàmpale ko waral mën naam it dogalub yàlla rek tawatut nàmpalut waaye yàlla def rek mënta gis deret wala mu amee dereti jàngoro nga xam ne li deret ji sotti ko jàngoro la te mënees koo xàmmee jëneekul jàngoro yooyu yëpp ñoo bokk àtte dañ koy wax ne ko toogal juróom-ñeenti weer da nga ëmb moom di ci ëpp juróom-ñeenti weer lay am danga toog juróom-ñeenti weer ñu tudde ko ak laablu ak wóorlu su juróom-ñeenti weer yi matee te gisu fi deret yëgu fi ëmb nag ñu wax ko ne ko kon teg ci yetti weer muy idda su ko defee mu daal nekk at at mu sëkk te bu fekkoon gisoon na fi deret moom day wàññi jooja tàmbali yooyu di seet ay laab di ko wàññi ba mat ñett su ëmb woon nit am nga doom rek mooy doon jeexu idda ja su fekkee nag am na at moom ñu wax te moom ci bopp mu yëgul dara ci biiram lii nuru ab ëmb jigéen ñi koy xool it gisuñ ci moom li tax ñu defeen daa ëmb kon bu at mu matee rek mën naa wuti jëkkër waaye nag bu yëgee ci bopp mu ne am na ñu yëngu ci biiram ba jigéen ñi koy xool ne ah kii day ëmb gi ci biiram kon faaw day toog rek ba sikki sàkk ga jeex amatuñ ca lu ñu wóolee di ko te loolu mooy benn mu am doom mbaam am yeenti at ndax dañuy wax gën jaa yàggi ëmb mën naa mat ñeenti at ba am sax ñu wax juróom ci nampal ba nampal gi tee koo gis deret moo ka gisul deret ngir tawat mbaa na ko yàlla bindee ñoo yemoon ci nga waxoon ne dañuy toog juróom-ñeenti weer bu juróom-ñeenti weer ya matee te gisuñu dara ci deret loola doy na ak laablu ñu teg ca yetti weer muy at muy leeral nag ne ndegam moom nàmpal gee tax du gis deret dañuy bàyyi ba nàmpala tut lay tax nàmpala tut nag benn doom jaa faatu wala doom jaa fer mu door a tàmbali nag seet ba xam bu gisul deret mel ne kon nàmpal ga muy nàmpal teewu koy gis baax muy dereti reegal kon bu gisee yetti laab rek daldi mën a wuti jëkkër nàmpal ga muy nàmpal te fëralegut tu tey ñu mën koo may jëkkër ki nga weesu léegi mooy koo xam ne danay gis deret ñu koy topploo ay laab day wax ci yooyu nag koo xam ne dafa ndawe ba du gis deret wala mu magee ba weesu koo gis ñooñ ñaar ku ci war a iddawu yetti weer lañ koy jàppe iddaam yetti weer lay doon daa dund nag juróom ñeent fukki bis rek waaye bu fekkee daa tàmbalee ci njëlbeenu weer bu amee yetti weer rek iddaam mat na bu ci amee weeru matul fanweer it du ca dara moom weeroot jëkk bu fekkee tàmbalewu ko ci weeroot jëkk bu fekkee tàmbalewu ko ci njëlbeen ga day xam fan ya ko ca raw bu àggee ci mujj mu fay ko ca lim ba weer ci topp nag moom bu ci nekk nam toll rek la koy tolloo weeru mat mat lu ca manqué manqué buñ ko fasee ci guddi gi te guddi gi moo tàmbalee fi jant bi sooye ba fajar fenk kon bëccëg bu mu jëm da koy wàññiwaale ci weer yo muy iddawu suñ ko fasee nag gannaaw ba fajar fenkee jëm ci bëccëg ba ba jant bi soo wax buñ koy fasee rek bis boobu du ko wàññiwaale day tàmbalee ci bis ba ca sës nga seetlu foofu ne bu dee tiweer yi moom duñ ci teqale jigéen ja nekk gor ak jigéen ja nekk jaam bu doon jaam itam te lu gis deret yetti weer rek ci wax ji gën a wóor mooy doon iddaam kenn du ko teqaleeg gor ci yooyu jamono ka war a iddawu moo xam dañ koo fase moo xam jëkkëram a faatu fekkee daa tolloon diggante maanaam ëmb dañuy seet bu fekkee ne ëmbum boobee dafa tegu ci yoon nga xam ne góor ga ko fase wala góor ga faatu mooy bàyyam dëgg-dëgg xam ne ëmb bi ci yoon la tegu kon bu amee doom rek idda ji jeex na moo tax ñu waxoon ne jëkkër ji mën naa faatu léegi ñu teg ci ay nit yu néew néew soxnaam sa ëmboon daal di am doom ñu jàpp ne iddaam jeex na donte sax bàyyi googu bàyyi ko ci jëkkëram joojee kat am na lu ci yoon ñëwut waaye nag yàlla rek xam lu ci wóor niki rëbbante ga nga yeesoon ci gannaaw xam nga soxna sa daa ëmboon ci benn anam ba jëkkër jëwaat ni ëmb bi juruma ko ñoom ñëpp ñu bokk waat ci yoon bañ tàggale leen xam nga kon jigéen jooje ëmbam boobee ki ñu koy bàyyile ñu ngi ne mooy bàyyam waaye du tee nag jigéen jooje bu amee doom rek idda ja jeex na ndax ndegam waat na ne moom kee daa weddi waaye moo ko jur dañuy jàpp ne kon moom ëmb bu nekk dëgg-dëgg yoon ñooye moom su amee doom rek idda ji jeex na li tax nag mu andi jam yi bu lépp ëmb ba juddoo mooy bu fekkoon ne day ay seex maanaam ñaari doom balu ko ëpp li fekk yépp judduwul rek idda ja jeexagut ba tey bu fekkoon ne benn doom la bu tàmbalee génn doonte sax la ci ëpp génn ne waaye lenn la génnagut idda ji jeexagut jeexagut mooy jëkkëram bu fekkee ne da ko fase woon fase muñ mën a fay li kon na xam ne idda ji jeexagut ba yooyu jamono mën na ne fayli naa ko mu daal di nekk ak fayli bu fekkee ne ëmb ba desu ko bàyyile góor googee ni ki jigéen ja dañoo joteeg moom joteeg njaaloo mu daal di ëmb nag su fekkee ne amoon na jëkkër te jëkkër ji nar koo téye maanaam fasewu ko faatuwut tam kon day bàyyi rek ba mu am doom bu amee doom rek laablu ga mat na bu fekkee nag bi soxna si ëmb ëmb bu aay daa fekkoon mu am jëkkër jëkkër ja fase ko mbaa jëkkër ja faatu kon mooy indi tuuti jafe-jafe ndax day mel ni kuy jàpp idda bu jëkkër ja fasee day iddawu idday fase idday fase mooy day bàyyi ba am doom toogaat nag ba gis baax ñetti yoon bu jëkkër ja faatoo nag day iddawu idday faatu waaye ëmb ba mooy tax day seet yaar yii lu mu ca njëkk a jot néggandiku ba àgg ca la ca des yaar yi mooy am doom ak àgg ci yeenti weer ak fukki fan bu amee doom te amul ñeenti weer ak fukki fan na néggadiku ba am ñeenti weer ak fukki fan bu amee ñeenti weer ak fukki fan te amul doom it na néggadiku ba am doom loolu mooy àtteb jàpp idda day wax idday faatu mu ne jigéen ci jëkkëram faatu bu fekkee ne tolluwul ci ëmb kon bu dee gor te ñuy teqale war ak jaam ñeenti weer lay am ak fukki fan bu dee jaam nag xaajub loolu ñaari weer ak juróomi fan nee nañu nag bis ba jëkkër ja faatoo da koy wàññiwaale doonte sax ba muy faatu fekk na takkusaan weesit lu tee mu wàññiwaale bis boobu ba tey ñu seetlu ne idda moom des ko fay su jëkkëram faatu woon ñu teg ca lu mat yeenti weer ak fukki fan ñu door a yëg ne jëkkëram faatu woon dat sàngam nga xam ne kon idda ji war na fee jeex kon du iddawu su fekkoon ne boobaa léegi yaari weer jàll na ci itam day mottali rek yaari weer fukki fan kon daal ñu teg foofu ne idda moom dees ko fay bu ñu xasee xam dat ba jëkkër ja faatu rek bu ko jigéen ji yeexee yëg te fekk idda ji jeex di jar muy jaar ci idda bu desee itam la des rek lay mottali bu ñu nee jigéen bu jëkkëram faatoo te fekk tolluwul ci ëmb ñeenti weer ak fukki fan lay doon bu dee jamono yi jaam amoon xaaj ba lay doon ñaari weer ak juróomi fan su gisee ne iddaam mat na te ba mu tolloo ca biir idda ja gisoon na ca deret kon deret ja wane na ne moom mi ëmbut mën naa daal di wuti jëkkër waaye nag bu idda ja matee te gisu ci deret benn yoon na seet ba xam wóolu na boppam wala wóolul boppam su ñaawee njort ci ne moom mii kat dafa ëmb kon na toog ba ñaaw njort ga dañ te loolu mooy mu toogaat juróomi yeenti weer ndax juróomi yeenti weer ndegam mooy diru ëmb daanaka su ko amaatee te ëmb nekk ci moom dana war a fés kon nag su amaatee juróomi yeenti weer te wóolu boppam ne ëmb nekkul ci moom mën naa daal di wut jëkkër waaye bu amee juróom-ñeenti weer yooyu te taxut mu rafet njort ci boppam maanaam ba tey ma ngay jàpp ne xëy na ëmb ngi ci moom kon day toog rek ba am yeenti at mbaa juróom ndax gën jaa yàgg ëmb am nañ ci wax yeenti at am nañ ci wax juróom nga seetlu foofu ne jaam bu jigéen bi nga ne bu doon ci yooyu jamono day am yaari weer juróom fan su iddaam matee noonee te gisu ci deret benn yoon waaye nag taxul bu ñaan njort ci ni ëmb ngi ci moom kon day dem ba matal ko yetti weer bu amee yetti weer rek kon maanaam daal di wuti jëkkër ci kaw nag mu wóolu boppam ne ëmb nekkul ci moom waaye su fekkoon ne ñaawoon na njort ci ne dafa ëmb mbaa jigéen ñi koy xool te xam ëmb ñaaw nañ ci moom njort day mel ne li nga waxoon léegi ci gor si nee na wooyu bi da ko waroon wax ci ba mu tolloo ci it day passé foofu la dëkk am na sax yenn yax yoo xam ne nee nañ bindaale wuñ ci wooyu yi daa wax ne jigéen bu ñu ko takkee takk boo xam ne mboolem borom xam-xam yi ci biir ngir mi ak ñi ci bitti ñëpp maase nañ ci ne baaxut mel na kam takk da koo jege ci askan mbaa nàmpaale ni ki ku mbokkal ndeeg baay wala ku mbokkal baay wala sax yaayam mu takk ko rek te xamu ko kooku ñëpp maase nañ ci ne sëy bu yàqu la kon dañuy seet benn nga xam ne jote naa ak moom mbaa jotewut ak moom dara su fekkee jotewut ak moom dara yoon da koy dindi rek te kookee mu takkoon muy jigéen ji du aajowu muy iddawu su fekkee xas nañ jote nag faaw rek mu war a iddawu idda ja idday fase lay doon na nga ko xamee woon rek bu dee ko gis deret yetti laab bu dee koo xam du gis deret ndax ndawe mbaa mage muy gor muy jaama ci yemoo yetti weer lay doon bu dee ko ëmb itam bu amee doom rekk idda ja door a jeex góor nag bu fasee soxnaam da ko war a yëgal ne ko fase naa la bu daal di mën a jàpp idda dañuy bañ góor gi toog benn bis rek ne sama soxna si fase woon naa ko ci dat sàngam bu fekkee ne mënu caa taxawal benn seere ne fase woon na ko ci dat boobee bis bu waxee passé mi ci aw làmmiñam rek la ñuy tàmbalee idda ja nga xam ne di fekk idda ji jeex tàmbali dat boobu bu fi faatoo rek soxna si doon na ko bu fekkoon ne nag taxawal na seere yu seere ne dat bi mu wax fase woon na ko ca dañ ko nëbboon rek moog seere yi kon ca dat ba la ñuy tàmbalee idda ja li fekk muy jeex rek bu fi góor gi faatoo soxna si doon ko bu xasee jeex nag kon soxna si du ko doonnati waaye nag loolu lépp ci kaw pase ma nekkoon pasem pay li pase mun mën a fay li tënj mooy ñaawlu jigéen ji bu jëkkëram faatoo wala boog bu faatu wutit àttekat bi àtte na ne faatu na kon day iddawu te boole ca ñaawlu ñaawlu nag mooy ñàkk a waaj rek nam daan def daal ba jëkkëram faatoo gutoon ak gannaaw ba jëkkëram faatoo amuñu genn wute gu may du sañ a waaj ci xeet takkaay ni ki wurus mbaa xaalis di ko takk wala xeeñoo xet gu neex wala fuddanu wala solo yére yoo xam ne yére yu waajtaay la loolu rek moo ci yokk waaye lu bokk taw loolu muuru gi ak saamoonteeg waxtu julli juróom yooyu yëpp na meloon rek bu jëkkëram faatoo gut gannaaw bu jëkkëram faatoo it benn la am jamono yoo xam ne dañ daan defar ay sangukaay yoo xam ne soo duggee foofa day tàng ba sa yaram ka jëf ñu sotti la ndox mu sedd nag nga sangu ba set génn daal di fay alkal nuurati wala lu mel ne am nuura am nuuratu matière la boo xam ne soo bëggee dindi kawar boo ko ci defee rek mu daal koy dindi ba mu set wecc te rataxal foofa kon xamle na dëgg-dëggi tenj ñu koy wax muuru mooy rek bàyyi lépp luy xeetu waajtaay luñ daan takkaayoo ci wurus mbaa xaalis wala ci xeet yére yi doroo de ñaw ko wala xeeti cuub yi wala sax fuddanu ak laalat ko lañ ba ci saab boo xam ne bu nee xeet la sax lépp luy xeetu waajtaay rek da koy bàyyi ba idda ji jeex boroom sax bi sangukaay yooyu ma tuddoon léegi amoon duñ ko may mu dem ca sangukaay boobee di ca sangu ndax loolu day lëtaxal yaramam rafetal ko loolu waajtaay la matière bi ñu tudde am nuura itam noonu la duñ ko may mu di ko jëfandikoo daañu ko may nag mu dusngalu dusngal boo xam ne da koy faje ay bëtam rek nga xam jubluwu ca waajtaay kon bu guddee na ko ca def faje ko bët ya su bëccëgee nag mu fomp ko moom set de sax bu fekkee ne bët ya dara sikku ca duñ ko may mu tus nga lu du ci guddi du ci bëccëg tënj daa am ñu koy tudde liggéey am na itam ñu jàpp ne jëkkëram ji génn àdduna lay liggéeyal moom mi muuru fekk na li muy def ak jaamu yàlla la goo xam ne yàlla la koy defal te dara yokkuwu ci lu may sant gi nga ko sant rek bañ a waaj mu topp ndigal la bañ a waaj loolu dong moo ci yokku xeeti julli juróom ca waxtooñ ko taamoo ak sàng yaram waag lépp lu koy nuru rek ba jëkkëram faatoo gutoon nam ko waree woon mook ni mu koy waree bu jëkkëram faatoo benn la amul dara lu ca soppiku jëpp yitte joo xam ne itam amuñ koo ko doxali te mënta ñàkk mën naa dem doxi ko ni ki bu bëggee jënd ca marché ba amul ko jëndali wala mu bëgg taxani lu mu toggee wala mu daan liggéey liggéey boo xam ne bu ci jàpput du am lu mu dundee mbaa mu amee jur goo xam ne moo leen daan wutal la ñuy lekk yooyu yëpp bu ci amul koo ko defal mën nay dem di ko defali boppam du sañ a dem nag ci xeeti xew-xew yi moo xam jaale ji la moo xam xew jàmm la yooyu moom du ca sañ a dem yi mënta ñàkk rek mooy tax mu sañ a génn ñuy moytu nag xeeti aada yu bari yi nga xamee ne day sonle rek te amul benn njëriñ biddaa rek la ni ki xeeti layu yi nga xam moom la ñuy teg ak paaka yeeg toog gi jublu xiw la tàllal seeni tànk sàkk waxtu woo xam ne ci la ñuy fóot wala sàkk bis bu ñuy sangu mbaa waxtu wu ñuy sangu am na ñoo wax ne koo mooru ba jant bi day bëgg a so daa war a jublu penku sàngoo ay mbalaanam bu wax dara bu tiis ci tey itam du ko julli noonu lay bàyyi rek ba gee jot nga xam ne kon julliwul tiis ci muxtaar ma te loolu lu araam la ñu ne itam bu fajar fenkee ba jant bi fenk daa war a toog jublu xibla sàngooy mbalaanam du wax du def dara ba jant bi fenk mu door a julli suba nga xam ne kon dana yenn bàkkaar bu rëy rëy ci ba mu dee timis mu yeexe ko ba waxtu moxtaar ma jàll ak bu mu dee julli suba mu yeexe ko far ba lépp waxtu jàll ba muy fay bor yooyu yëpp yenn bàkkaar yu mag la te ay coono dong la yu ñu aadawoo rekk kon daal moom mi muuru na xam ne ñàkk a waaj waajtaayu àdduna rekk mooy muuru gi leneen yokkuwu ci waxtu bu bëggee sangu na sangu waxtu bëggee fóot na fóot bu mu sàkkal sangu mbaa fóot benn bis mbaa benn waxtu bu fekkee du ngànt nay moytu toog jublu xibla tàllal ay tànkam ndax tàllal tànk yi araamut sax waaye nag nit ñu baax yi dañu fonk xibla ba li ci ëpp duñ tàllal seeni tànk di ko jëmale xibla ñu bañ a fàtte ne jigéen ji iddawu bu sañ a laal dara ci alal jëkkër ji faatu bu jëkkër ji faatoo say ba ñu gaaw seet gannaawam miraas ndax kenn ku ne féeteeg sa bopp alal jam bàyyi soxna sa mbaa waa kër ga duñ ca sañ a laal dara ba kere ñu koy séddale kenn ku ne xam la ko ci yoon jox su soxna sa xamul loolu nag ba am lu mu ca jël ca alal ja di ko dunde mbaa mu def ko neneen bu ñëwee ba miraas na ko leeral bi ku ko mënee jéggal jéggal ko ko bi ku ko mënta jéggal mu fay ko kon bala noo génn buntub idda nu fàttalee ne buñ ko fasee moom jigéen ji ca guddi ga njëkk fajar di fenk bëccëg ba mu jëm da koy wàññi waale ndegam ay weer lay wàññi su dee nag gannaaw fajar lañ ko fase du wàññi waale bés booba mu wuteeg bu jëkkëram faatu woon muy iddawu idday faatu kooku moom bu jëkkër ja faatu woon gannaaw takkusaan it du tee ñu wàññiwaale bis boobee ñu bañ a fàtte itam ne bu jigéen ji dee iddawu iddawuy faatu bu dee léegi gor rek am bu amee yenti weer ak fukki fan te gistoon deret benn yoon nga xam ne wóoru nu ba xam ëmb naam ëmbut dañu waxoon ne day toog juróom-ñeenti weer ngir ñu xam ba xam ëmb naam ëmbut bu amee juróom-ñeenti weer te gisul ëmb mu teg ci yetti weer muy at muuru gëm doon muuru moom fu mu amee yenti weer ak fukki fan rek foofa la koy yemale waaye nag laablu googu moom mën naa wees sax at ndax dañ ne woon su amee at te jàpp ne ëmb gi ci biiram mbaa jigéen ñi koy xool jàpp ne ëmb gi ci biiram it day dem ba mu wóor ne ëmb na mbaa amut loolu nag mën naa dem ba yenti at wala juróomi at ndax gën jaa yàggi ëmb dañ caa wute ñee wax ñeenti at ñee wax juróom kon jigéen ji muuru mën naa jeexal yenti weer ak fukki fan te du tax mu sañ a wuti jëkkër su boobaa nag day bàyyi muuru ga te bañ a wuti jëkkër nag ba àgg ci daat bañ ko waxoon ne ko mooy tax nga mën a wuti jëkkër